di jaajëfal rek les téléspectateurs Bantamba TV muy mbégte ak contentement comme ni ma koy waxee rek chaque jour 100 pour 100 football local sur la télévision Bantamba TV. comme li ñu wax rek ci football football moom c'est une famille te dafa yaatu dafa am ñu nekk ci biir terrain bi am ñu nekk ci kaw tribune bi am ñu nekk ci suuf am ñu nekk ci ginnaaw tribune bi tey nag dama ñëw seet si benn acteur esportif muy nit ku baax di Modou Dieng ñu xame ko nag ci. ay équipementier muy naan di defar ay équipement muy doomu Sénégal dëkk fii ci HLM ci commune HLM moom it mu ngi jàpp ci combat wu Bantamba TV muy télévision bi nga xam ni 100 cent sport la muy comme ni ma koy waxee rek muy ci football muy ci basket ci lutte ci hippisme ci karaté ci pétanque Modou Mboup maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw asalaamaaleykum maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di nuyu waa Bantamba TV yëpp. di di la gërëm bu baax li nga ñëw fii tey jërëjëf. waaw jërëjëf euh, Modou ñun suñu devoir rek la ñuy def comme ni ngay wax rek lépp li nga xam ni mooy taaral euh, suñu football ak lépp li nga xam ni tamit ñooy jàpp ci ci football bi pour football local bi jëm ci kanam loolu moom dañ ciy xar suñu tànk tubéy asmaa mun loolu rek a ko tax a jóg bëgguma rek mu dama bëgg rek muy rafet chaque jour te nekkuma nag ci benn concurrence maanaam li ma ñëw rek ci sama domaine laa ñëw ndax suñ ma xamee football moo tax di wax ni rek moo du gis nañ tey macha allah gis nañ tey ji ni ku ñu waxoon ni lii am na fii ci Sénégal du ko gëm parce que gis naa fi ay machines yoo xam ne tey jii nii boo doon xool maanaam ah, ci à l'extérieur nga koy gis gis naa fi tamit ay design équipement yoo xam ne tey jii nii suñ doon wax tey jii nii peut-être ci ay Adidas dañ koy gis wala ci ay Nike mais macha allah idée bi fan la jógee. waaw comme li nga wax rek dafa nekk loo xam te ne lu am solo la parce que ñun dañu yàlla dañu may ñu nekk ay jeunes yoo xam te ne dañu gëm suñu dëkk te dañuy tukki si lu bëri te dañuy gëm ne li ñuy dem di ko wuti pour nañ ko mën a investir fii mu nekk loo xam te ne dina dina nekk loo xam te ne dina créer emploi en même temps dinañu per permettre tey euh, ku ne gis sa bopp donc ñu ñu gëm ne Sénégal développement Sénégal il faut ñu ñu ñu ñu xalaat par rapport ak jeunes yi fi nekk donc tey tukki yi ñuy tukki ak gis Sénégal yi lu ñuy importer lu bëri ci ay maillot équipementier ñu xalaat ne pourquoi pas war war nañu installer usine boo xamante ne day nekk norme international donc comme li nga wax li ngay fekk Chine li ngay fekk Dubaï li ngay fekk France Turquie machine yooyu même chose lañ la ñu am fii Sénégal moom la ñu installé fii donc loolu yëpp pour pour créer emploi mais en même temps pour yombal yombal lu bëri mm. par rapport ak ak équipe yi fi nekk donc tey da gis benn équipe ku mel ne US euh, Wakam da war a dem final di xaar benn équipementier fële pour kook di ko yónnee wala nga xool kereen donc loolu noonu damay lancer appel rek bu ndaw ñu wax ne ñun ay Sénégal lañu nañu gëm suñu bopp ba pare donc bu ñu gisee ne sénégalais am na ñu nekk fii di liggéey si loolu dañ leen jàppale moo gën ñuy jé jéggaane te loolu esprit africain la nekk la am waaw d' abord développement wu dëkk day nekk sunu biir ñu suñu bopp donc sport bi comme ni nga wax rek yàgg naa si trop te dama gëm ne développement wu lii yëpp dafa bokk si sport comme ni ko tuddee donc loolu daal laa amoon lu may lu may wax daal. waaw muy dëgg rek comme ni nga ko waxee waaw muy lu rafet waaw ndax doomu sénégalais waaw nii rek la mën a mel ndax Sénégal moom euh, ay jàmbaar rek a fi nekk ay nit yu am ambition am vision comme ni nga ko waxee rek euh, da ngay gis euh, tey jii ñu mi ngi koy wax ci équipe yi nga xam ne dañuy final même pas sax ci équipe yi final mais équipe bu Sénégal dafa bëri ay équipe munaam ci petite catégorie ak centre de formation yi ak équipe yi nga xam ne tamit ñoo nekk ci championnat muy Ligue 1 Ligue 2 ci championnat amateur division régionale bi yooyu yëpp da ci ay équipement la ñuy sol te en général da nga gis ñuy dem en Chine dem di jëndi ay équipement mais tey jii nii dem nañ ba sénégalais yi comme ni may wax rek ci vision muy doomu sénégalais dëkk fii ci ci HLM ci commune HLM bi ba pare investir li lii dañ ko war a teg loxo comme ni mu ko waxee léegi dañuy ñëw parce que balaa may wax sax di def appel bi ngay wax tamit euh, pour sax woo équipe bi damay jaar ci bunt bi ndax mënu ma nekk fii HLM te du ma njëkkee ci ASC HLM ba xam tamit euh, ñoom gis naa leen ba xam am nga ñoom en partenariat parce que gis nañ HLM di yaatu daal maanaam di monter en puissance di créer tamit ay ay centre de formation ak lu bari daal. waaw comme li nga wax rek dafa am solo parce que boo dëkkee si gox balaa ngay def dara defe naa fa ngay commencer. donc am na fi comme basket club ku mel ne seen ancien président bi kooku suma xarit la muy tonton Diallo donc ñëw na fii ñoo ngi liggéey man ak moom si si basket bi donc si euh, euh, football bi moom it ñëw na ma defal ko ne échantillon mais malheureusement xam nga sénégalais souvent lu nekk seen seen weewu tànk dañ koy jéggaane dem feneen te loolu loolu loolu laay wax ne patriotisme d'abord balaa ñuy wax. nañ commencé suñu bopp dañu gëm suñu bopp li ngay jëm joxe kële war nga ko mën a jox ki nekk fii sa place te koo xam ne jeune HLM la te dans l' international moo ngi percé parce que du may international comme li nga wax am na dëkk yoo xam te ne seen équipementier defe naa man maa koy def te loolu warul donc moo tax je suis ouvert donc am na école de football yu fi nekk lu mel ne lasi maa ngi liggéey moom baax donc ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam te ne. maa ngi maa ngi maa ngi leen solal di leen ñawal waaw donc loolu daal laa amoon lu may wax. waaw mais bi nga xam ne mu ngi ligue professionnelle la. waaw moom laay wax xam nga ñoom euh, ñu am na ku fi ñëwoon ma defal ko échantillon donc amaguma retour si ñoom donc xamu xamuma te waaw donc xamaguma donc euh, am na ku nekk suñu diggante ko xamante ne moo ci doon dox parce que il faut que ñoom ñu comprendre que. Euh, yàlla dafa def bi may jógee euh, tukki bi ma tukki dama bokkoon euh, Lyon yi ma bokkoon ñoom avion ñoom ñuy ñu bokk may dem Chine ñoom ñuy dem Addis pour dem Rwanda bi ñuy dem ñoo ñu ànd bi ñuy ñëw ñoo ànd parce que dañ bi ma toogee nag foofu damay ibbi benn brèche rek ma tànnal benn si président yi ma waxtaan ak moom ma ne ko kan moom leen kii defe naa mu ne donc ñu waxtaan tuuti xoos tuuti ma gëm ne man li ñu li ñuy fédération li muy laaj critère man am naa ko pour mun a sponsoriser pour solal équipement fédération basket te sama objectif mooy tey équipe nationale Sénégal benn sénégalais africain di ko solal donc li ñuy laaj si moyen war naa ko mun a teg si table bi pour mën a gën a am visibilité loolu yëpp ay appel la ak brèche yu may ibbi parce que man vision bu ma yor nawetaan dëgg la xeeb ma kenn mais dama bëgg tey ñun li ñuy sol ñuy sol suñ loo xam te ñoo ko moom par exemple waaw loo xam parce que consommation consommer local boobu loolu la chinois yi def avancé loolu la kii euh, euh, israéliens yi def avancé noonu la ñëpp def avancé te ñun gëmuñu loolu Sénégal développement Sénégal Sénégal moo koy def waaw du du du du du nit mooy jóge fële di ñu ko defar donc ñoom d'abord da ngay gis ne complexe bi day day feeñ ci ñoom parce que am ñoom bu ñu solul ma bu jógee fële du ñoom jàmm te or am na sénégalais bu fi nekk boo xam te ne moom moo koy defar du ma ne ne fi ñu toll nii man maa ngi maa ngi defar di yóbbu Paris France ñoom xamuñu loolu di di jaay Europe fii laay toog di di di defar di jaay. donc loolu man ba tey mënuma comprendre te kii kooku sénégalais la fii la ne di fay impôt di di fay lu métti te amul benn soutenance boo xam ne tey war nañu mën a kii lu population bi parce que léegi population bi la ñu am parce que foofu sax du wax ma waxu état mais mu dama gëm ne dëkk bu ñu bu ñu bëggee mu développé dañuy créer ay entrepreneur yoo xam ne dañ leen jàppale. ñuy exonéré ay TVA yi jàppale ñu ñun soxla ñu sax xaalis parce que li ñu soxla mooy ku ñu ku ñu may jàmm tuuti. yombale lu bëri. donc metti na trop ak sa fonds propre da liggéey doom benn banque bu la jàppale donc yow da liggéey pour pour affaire yi dox waaw loolu daal laa amoon benn brèche bu mu doon ibbi si loolu. voilà dëgg la comme ni mu ko waxee rek euh, kàddu yi rafet na tamit vision bi tamit gis nañ ko euh, sori na comme ni ñu waxee rek euh, ci ICHLM dinaa ci taxaw tuuti ndax muy le président Aziz Abdou Aziz moom it muy nit ku baax nit ku ambitieux tey ragal naa xëy na. Euh, peut-être comme intermédiaire comme ni nga ko waxee rek euh, amagoo retour mais du ñaax tamit bu seetaanee émission bi xam naa ne du ñaax euh, retour bi dina ñëw ndax tamit dinaa ko woo dinaa ci waxtaan ak moom ndax tey jii nii lii ngay def nii lu rafet la yow ku ñu war a dooleel nga parce que boo xoolee tey jii nii yemoo rek ci Sénégal. di euh, di di di maanaam di ravitailler maanaam équipe bu Sénégal yi yow yaa ngi ci ba à à l'étranger su ma juumul gis naa fi yoo xam ne peut-être mën na ne ay Gabon la waaw ainsi de suite defe naa bëri na euh, comme waaw mun nga ma waaw mun nga ko. Mali Centrafrique Libéria ah Guinée Guinée Conakry Guinée Bissau donc ñoo ngi ñoo ngi liggéey si loolu si li nga wax sax si président am Aziz man xawuma ko par intermédiaire la ñuy wax waxee. mais gis naa ne xam nga nit moom boo nekkee jeune nga jël benn responsabilité di def sa xaalis jàmbaar la man xawuma ko nii parce que Sénégal lañ nekk te milieu euh, football dafa xaw a metti te gis naa maa ngi doon waxtaan sa benn grand di ko wax ne ñoom nan ñuy def pour di leen jàppale parce que métti na trop xam naa ne métti na si moom parce que day jël moyen di ko def te. ñu nit lu ñu mun mooy mu ñëw suñu ñu mun ko jàppale. parce que xëy na am na lu muy daw loo xamante ne bu ñëwoon mhm. dañu ko mën a teg si yoon mhm. jàppale ko parce que man fii laa dëkk comme ñoom. voilà ah, ku gis sa bopp. Mhm. donc loolu moom it appel la boo xamante ne maa ngi koy def. si moom mais bon xaw moo ko nii mais xam naa ne jàmbaar la. Ah. waaw jàmbaar la Aziz moom <laughs> homme de défi la moom moom chaque jour moom ci loolu lay ci loolu lay dox te dafa bëgg lu baax comme ni ñuy wax rek encore une fois ñu ngi defaat appel di wax ni Aziz rek xam naa ni du ñàkk euh, rencontre bi yow ak euh, Modou Mbuub léegi dañuy ñëw Modou Mbuub léegi gis nañ comme li nga wax noonu gis nañ ni yaa ngi ci liggéey bi sur le plan international mais sur le plan national moo des mooy ci côté jàppale. ak ci appel bi nga xam ne tamit bëgg naa nga def ko ci les clubs sénégalais yi nga xam ne tamit ñu ngi fi. waaw comme comme li nga wax rek question boobu dafa nekk question boobu te ne parce que fii dama démarré mais sama objectif mooy club sénégalais yi fi nekk yëpp au lieu ñuy dem si ay du ma ne commerçant ñuy ñuy importe di leen jaay nañu consommer fii parce que ñooñu amuñu emploi duñ créer emploi dañuy jënd di consommer seen bopp te loolu du développer le dëkk. ñooñu nañu xam ne Sénégal bu ñu bëggee mu développer dañuy jël ay jeunes yoo xam te ni fii lañ nekk sama objectif mooy am lu mat mille emplois fi ñu doon li fi nekk rek cent emplois boo ma commandé mille maillots tey mën naa la ko defal tey donc capacité bi am naa ko donc état bi moom it ñooy ubbi foofu pour mu sori euh, euh, au niveau de Diamniadio. li hangar yi fa nekk usines yooyu nañu fa favoriser sénégalais yi mm-hmm. jàppale leen ñuy ibbi foofu mais doo am benn ouverture mm-hmm. doo am benn agence booy dem boo xamante ne mun na la accompagner si loolu mm-hmm. te loolu day tax immigration bi di gën a bëri nit yi bu ñu gisul fu ñu jëm dañuy xool yoon bu ñuy dem te ñun xam nañu ne am nañu xalaat ak xel ak vision pour mun a développer Sénégal man nag sama liggéey dafa bëri donc comme yow ma rek si sport bi parce que communication la ma ñëpp xamee donc depuis vingt ans maa ngi si biir damay jaay ay machine dans l' international damay jaay ay machine Sénégal société de communication mag yu bëri man maa jaay ay machine donc si man maay li pour na mun naa li leader laa si loolu donc bokk naa Sénégal boo xam te ne moom it ay sept députés chinois ñoo déplacé wu ba Chine ñëw ba fii pour inaugurer sama sama société bi donc loolu du ndaw te boobu bëri naa ay distinction yu bëri dans l' international donc jeune laa boo xamante ne moom it boo demee Chine benn Sénégalais moo fa am usine buy defar machine man la donc loolu yëpp dafa am solo nit yi di ko xam tey booy investir da ngay investir loo xamante ne dina permettre nit yi gis seen bopp te maa ngi koy waxtaan ak benn chef d'ailleurs sànq di ko ne li ngeen liggéey pour yéen la mais il faut ngeen gëm ne li ngay liggéey dina am njëriñ si yéen te loolu ay appel la yoo xamante ne da koy wax li ma mën a wax. équipe nawetaan yi équipe club yi champion ñoom ñëpp nañ xam ne fii am na ku leen ko mu mën a defar même prix que Chine Turquie lu gën a yomb ko ñoom te ay sénégalais koy defar. te duñ déplacé wu te loolu yëpp am nañu possibilité boo xam ne mën na fam am di di ñaan di wax nag waa fédération basket football maa leen tàllal sama loxo bëgg naa bokk ci sponsor. yuy yuy ñawal tey équipe nationale parce que mënuñu am équipe nationale boo xamante ne amuñu boutique boo xamante ne fa la ñuy jënd jaay ay mayo yoo xamante ne sénégalais la ñoom ñu mun gis seen bopp te loolu yëpp ñoom dañu war a nekk patriote jàppale sénégalais yi fii sénégalais boo koy jàppale doo jël avion di dem ay France di jël ay kenn benn tubaab di ko fi indi pour kooku gëm na ne kooku da lay liggéeyal si noonu te day si am lu bëri parce que visibilité tey boo demee lu mel ne Rwanda. man maa benn xarit boo xam te ne Rwanda la dëkk mais dafa jékki-jékki français nekk di jàng jékki-jékki rek Paul Kagame woo ko ne euh, kii ñu benn benn benn seen benn genre euh, kii la euh, benn genre direction boo xam ne day xool expatriés yu dem mu leen mu mu leen jéem a waxtaan ak ñoom pour financer leen pour ñëw dafa jékki-jékki ñu woo ko ba dama liggéey moom foofu ñu woo ko jox ko financement boo am doole boo xam te ne dafa ñëw dëkkam. léegi yu bëri moo koy defal foofu boppam donc ñun mënoo tey même buy jël sax équipe dafa dem jël Sénégal africain ah Cheikh Sarr indi ko foofu teg ko ne ko entraînel jox naa la objectif pour kii mais ñun tey bu tubaab defarul wala tubaab waxul ñun bokkuñu te loolu loolu du du noonu la parce que ñun man bu ñuy wax dëkk jullit lañu dëkk layit lañu ay dëkk catholique lañu wala dara dafa war a feeñ su ñun donc moo tax football bi man gën naa ne war na mun a gën a développer fii mm-hmm. waaw. football bi mën na gën a développé fii tamit euh, développement bi tamit gëm na ni dina am ñu bëri yoo xam ne dinañ ci gis seen bopp ndax football dafa yaatu waa ku ne quelque yi euh, ñu ngi ciy gagné jaaykat yi sax da ngay gis bu ñu demee ci tribune yi dañuy jaay dañuy jaay gerte di jaay ay jus ñoom ñëpp ñu ngi ciy gis seen bopp waa jaay crème ak yooyu yëpp mi ngi ci comme di wax ni rek football dafa yaatu te porte la boo xam ne tamit euh, mën na mën na mën na ci dimbali la gouvernement comme ni nga ko waxee maanaam ci côté chômage parce que am na lu bëri loo xam ne tey jii nii suñ ko yombalee maanaam ci ci côté famille football rek am na lu bëri loo xam ne euh, nit ñu bari xale yu bëri dinañ ci gis seen bopp comme tey jii nii ci Brest bii nga xam ne ci lan nekk ci lu ñuy waxtaan ci côté équipementier ñu ñëw nag seet si Modou Mboup muy nit ku baax nit koo xam ne tey jii nii maanaam waaw ku waaw Modou Dieng waaw ku ku euh, maanaam jàmbaar la daal waaw parce que lii tey jii nii hommage sax lañ ko war a rendre parce que ku yore ay cent emplois yore ay machine yoo xam ne tamit Chine la jóge jóge maanaam ñi ci defal ay équipement muy Sénégal di à l'étranger loolu lu rafet la léegi dañuy ñëw maanaam moo du léegi du ci équipement rek nga nekk defe naa ni am nga ci yeneen affaire yoo xam ne tamit di nga ko liggéey ci ci sa usine bi. waaw waaw du du du du si kii parce que équipementier bi ñu ko commencé yàggul mais li ma gën a spécialisé wu mooy communication donc damay defar ay support de communication mais damay jaay ay machine machine machine de production yi donc machine yi ngay gis yuy liggéey yu bëri dama koy def te am naa say partenaires yu bëri yoo xam te ne damay liggéey ñoom dans l'international parce que du ma wax chaque jour dama parce que vision bi ngay am day sori par rapport ak ak ak li fi am donc di di wax ne yàgg naa si trop ci communication même événementiel dama koy def donc bokk naa Sénégalais yoo xam te ne même forum de l'eau bi donc boo bokk naa Sénégal yi si liggéey donc si aménagement donc loolu ñu bëri xam nañ ma si loolu mais souvent boo nekkee patriote souvent dañuy gis loo xamante ne manque à bu bëri la boo xamante ne mun na dugg si football bi te mun na créer emploi tey li li muy liggéey indirectement plus de cinq cent personnes ñu ngi si dund parce que équipementiers yi di am na ñoo xamante ne ay patriotes lañu ku mel ne Karim équipement ku mel ne Sokana ñooñu dama leen gërëm di leen sant dañ leen dem Chine di jënd mais ñoom ñooñu tey bu sama société tollee fii ñoo ñoo tax parce que ñoom ñoo may commandé chaque jour di liggéey man chaque jour mais ñeneen dem commandé Chine taw xaar mu ñëw wala Turquie te loolu tey état bi ñun dañu dañ dañu war a protéger président ah, kii euh, euh, président wu ASC e yi muy président euh, ligue mais nañu xam ne ah ñun si ñoom lañu bokk tey am na ñoo xam ne suñu mag yu fi nekkoon yoo xamante ne ñoom fi ñu toll la ñu mës a toll jéemuñu ibbi affaire bi jéemuñu ëpp upgrade jéemuñu avancé loo tey si si si mbirum mayo mais ñun tey dañu investir xaalis bëri boo xamante ne tey type de production boo teg mun nañ ko def mayo boo xalaat mun nañ ko defar lépp nag techniquement lépp dañ mën nañ ko defar sur place tey gis nga ne maillot yi ñu defar boo ko xoolee da ngay yaakaar ne sax defaruñu ko fii te ay Sénégalais ñoo ko du ay naar tubaab. mais kii bi tissu bi fu muy jógee. tissu bi Chine matière premier fa lay jógee. parce que malheureusement. mooy wax loolu tey am na benn usine bu nekk si Serigne Serigne boobu je crois Kaolack maa ngi doon contacter pour xool mais ñooñu defe naa coton bi la ñu defal donc te bëgg nañu tey lii benn phase la. bëgg nañu tey coton bi ñuy bay fii. bu ñu doolelee ñu mën a defar fii suñu tisu bopp Sénégal nekk ëpp de développement boo xamante ne parce que couture bi fi nekk mais li fi tailleur yi fi li fi nekk kenn xam nu mu toll te dëkk boo demee benn dëkk bu mel ne Chine da dëkk dangay dem nga dem nga dem tey dëkk bu mel ne Shenzhen ñu ne la fii lépp lu électronique la ñuy def la def nga dem yugu ñu ne lépp luy kenkaay ak yi la def nga dem tey. Euh, benn benn dëkk bu mel ne Sunda ñu ne la fii meuble rek la mais dëkk boobu dafa mel ne ñu nga ne senegal benn benn euh, euh, benn affaire kase mun na développer benn dëkk benn chaîne de production donc ma gëm ne damay lancer appel ne leen dëkk pays ki ko war a mooy sénégalais ñoom ñu gëm ne ñun ay sénégalais lañu. loolu la laa boo xam du ñu ay esclave yaa may dégg du ñu tënk bu ñu nangu ñu tënkuñu si loo xam te ne ëllëg mooy indi conséquence bi. waaw comme ce que tamit dox nga pour am audience ak le président de la république parce que tey jii nii président bi bon pour man euh, du gis lii te du du dooleel ki koy def. waaw mais xam nga président de la république moom laay wax chaque jour parce que souvent dañuy faral tëb président de la république parce que am na ñu fi nekk ay autorités yoo xam te ne. dañu ibbi seen bët xool parce que Sénégal moom lay wax da ngay jàll dem dara du yàgg te nañu gëm seen bopp gëm ne fii Sénégal dëkk bi dañ ko siy bàyyi si jàmm te dañuy jóge fii dem ñeneen ñëw te jeunesse bi comme suñu genre yi dañuy émerger xam nañu développement bu ñu demee tubaab du wax moom dañuy wax ak tubaab correctement mu respecte ñu correctement dañuy xool ak moom muy wax ñu dañu am sax employé tubaab donc xam nañ suñu droit xam nañ suñu yoon. mais ñoom nañu gëm ne li ñuy def dangay gis benn événement bu ñu organiser di la wax emploi des jeunes nga gis fa comme benn émission ma dégg waaj di ko wax ñun ñoom ñëpp toog connaissance ak costume toog te du ñu wax jeunes yi exactement yan entrepreneur ñoo war a ñëw taxaw wax leen lan muy solution da ngay toog man ma ne la sa man nga taxaw man ma la mun naa la créer lu ma 10 000 emplois loolu mooy sama liggéey mais dëkk yi may dem di ko créer te ma nekk fii sénégalais dëkk HLM. war naa mën war war nga mën a toog man comme ni nga waxtaan ak man ñii. tey ñu war si mun gis nga gis nga développement wu dëkk dama lay wax rek gis nga équipementier bi même ba si télé bi sax da siy da siy gis boppam redevance ëllëg te loolu ñu bëri xamuñu ko gis nga kële bi ñu ñu liggéey ak Sénégal yi nekk fii ñoom da mën a permettre visibilité benn ba pare da mën a permettre tey ñu atteindre benn objectif. parce que li ñuy dem boo commandé fële def ko fret FedEx wala DHL loolu yëpp ay tubaab ko moom sa mais ñun ñuy dëkk fii war a liggéey mais nañu jox nit yi liggéey liggéey am na fi xam nga am bu ñu des jeunes wala xale yi di émigré mun da ngay dem dëkk temps yi lay dem naa fi Espagne Las Palmas nga gis yi jóge ci gaal yi ñëw nga gis leen parce que dañ yaakaar ne bi ñu demee foofu Eldorado lañ fa fekk nga dem foofu ñu tegle si ay camp li ñuy lekk du ko mën a lekk yàlla dama dimbali ma tental kenn ma xool ko xool ko ci yàgg yëkkati cinquante euros jox ko mais bi ma ko joxee waa xale bi booy bi dama doon jël sama loxo di ma nuyu di ma expliqué sama yaru daw ma xam ne lii yëpp dañ leen wax dëgg la ñu dem dañu yor ay famille dañu gis loo xam te dañ ko dund dund metti te gis nañu ñi fi ne teguñu benn pas boo xam te ne tey war na mën a permettre développement am te loolu tey mënoo jël alal bu jox boo xam ne pour ñëpp la nga téye ko ba pare xaar ne ëllëg boo ne demee yàlla wala benn sëriñ dina la dugal non bu nu ne sa waay moo tax Sénégal point yi dafa bëri dafa sensible moo tax développement wu dëkk ñoom nañu xam ne du tubaab mais sénégalais chinois yi wane nañu yoon bi ay quatre-vingt-quinze ay Mali moo la doon may ay ceeb. Mm-hmm. mais tey boo demee dëkk bi sa xol day sedd chinois day lekk chinois naan chinois xaalis sax lépp fa lañ fa lañ koy même bi suñ bi ñu nekkee fii seen développement yi dañ koy teg si si ay si si seen ay mboq mais naka laa mën a comprendre sénégalais boo tee jël avion dem jënd ñëw indi te Sénégal kii fi toog mën na ko te même prix la non non du ko def parce que waaw na daanu non <laughs> waaw loolu la crédit du cœur moo di Dieng rek déggeen ko waaw muy mbégte nag ak contentement comme ni ñu koy waxee rek chaque jour ci Bantamba TV 100 pour 100 football local la. fu du ci terrain bi rek des fois nag damay dem ci ginnaaw parce que am na ñoo xam ne tamit ñoo yore football bi di wax nii rek daanaka ñu ngi ci euh, fin wu émission bi mais tamit du tax tamit dinaa def appel appel bi may def rek moom mooy les clubs ak les président sénégalais yi nga xam ne tamit ñoo nekk fii ñu ñëw ci seen doom ji nga xam ne mooy Mody Dieng nekk fii di defar équipementier maanaam qualité bu nekk mooy tey. pure qualité lay defar amul lenn loo xam ne tey jii nii mën nañu wax ni euh, di nga dina nekk false wala loo xam ne nekkul ci qualité bu baax te di ngeen ko gis parce que mi ngi fi ak sama ndaanaan bi muy maam Cheikh moom lépp li ñuy génnee di ngeen gis xam ni tey jii nii qualité rek moo fi nekk léegi Dieng dañuy ñëw nag parce que daanaka ñu ngi ci euh, fin wu waaw euh, entretien bi tey jii nii lan nga bëgg a wax maanaam appel bi ngay def ak li nga xam ne tamit yaa ngi ciy woo maanaam commune HLM bi ak li xam ne tamit yaa ngi woo club yi nga xam ne tamit ñu ngi ci Sénégal. waaw xam naa am nag si si si fi ma dëkk laay commencé donc commune bi yàlla dafa def ne maire bi fi nekk suma xarit la te ku baax la te ku jub la donc te xam naa ko bu baax te malheureusement Sénégal des fois du ñu comprendre yenn nit yi te maa koy maa ngi koy ñaanal yenn bi di ko jàppale bu baax. si yoon bu mu nekk parce que koo xamante ne la tey moo tollee fii tey moo tax liggéey nag man 9 ans mu nekk sama comptable donc ma xam nu mu mel ma xam ne tey bu ko HLM dénkee te waa mu H&M xamuñu man man la maa la ko mën a wax donc beres woon rek bu muy ibbi occasionnellement. Moustapha Diop ah. Moustapha Diop donc xam naa ko bu baax te li li may wax rek sànq moom wax naa ko mooy que nañ gëm suñu bopp. waaw développement wu dëkk du kenn ku ñu ko mën a importer te bu ñu xaar kenn développé suñu dëkk ku dul suñu bopp ñun moo tax des fois du ma déggee yenn om politique yi damay reetaan parce que koo xam développement di liggéey si entrepreneuriat da ngay xam lu bëri loo xam te ne xëy na nit duñ ko xam moo tax yàlla defoon na sax ma dugg si politique après ma bàyyi ko parce que éthique bi ak lu bëri du la ko may te yow li ngay gëm ak yeneen li ñuy gëm du doon benn. moo tax yooyu yëpp ma teg ko fële liggéey si politique de développement boo xam te ne tey waaw waaw politique développement bi de telle sorte que di nga si am yàlla di nga si am xale yoo xam te ne tey am na formation te amul fii donc man koy jox xale yi dinañ ko former ñuy ñu si am njaboot di si am ay kër di dimbali si ay nit ñi ma formé kenn xam mu toll te parce que loolu yëpp tey loolu la sénégalais soxla mais du ay wax du ay débat nañu maa ngi def appel la ñuy invité chef d'entreprise ñu bañ leen nëbb ñuy wax lan mooy développement wax dëgg réalité bi lu ñuy dund Sénégal loolu soxla mais du culture dëgg la fecc ak mais dafa am loo xam dafa war a dafa war a deñ Sénégal waaw nañu liggéey waa di wax daal di la gërëm yow di la sant bu baax parce que lii mooy wane ne Bantamba TV pour ñëpp la te lii mooy wane ne. vision bi ngeen am te lii moo tax tey seen seen seen chaîne bi nekk leader sport parce que dem nga gis nga ma ñëw ba fii xam ne ne kii bu boo ko jàppalee li muy passé du pour du pour du pour chaîne bi rek mais pour Sénégalais yëpp tey yaa ngi may wane bu yàlla de affaire yi defee lu am doole xam nga ne am na ñu bëri ñu si mën a jëriñu te loolu la war a Sénégal war xalaat moo tax maa def appel président yi nañu jàppale sénégal yi man du ma faral wax ay gouvernement parce que gëmuma loolu waaw man li ma gëm mooy ñun Sénégal d'abord waaw naka lan ngay apporter tey li nga ma li nga ma defal nii mënuma la ko fay waxtaan rek parce que man damay def communication mais bàyyi nga ñëw toog pour di wax pour nit yi xam ma xam ne lii am na fii tey waaw première fois mu la gisee geste bi nga def rek sama xol dafa sedd te ñu nit dama wax Bantamba TV suñu suñu chaîne la tey. nekk nii kon dafa mel ni yaa war a solal Bantamba TV léegi suñu t-shirt yi parce que ci làmb yi la ñu nekk ak ci yëpp waaw. non kooku moom. Ah, adresse waaw waaw comme li nga wax Bantamba TV moom. bisim tey moom defe naa dañuy signé contrat pour un an defe naa lépp la leen soliti moom su <laughs> ñun lay jógee te loolu loolu la ñu fas def parce que quand ñun loolu la am te publicité moo leen dundal moo leen fay donc nit yi nañ ko xam te dañ leen jàppale di leen wax ñooy HLM 6 donc euh, sunu numéro 77 561 49 50 donc donc suñu numéro si woto stade bi donc am nañu numéro bureau am nañu beneen numéro boo xamante ne euh, so waaw 77 504 60 60 77 504 60 60 donc boo ci wootee loo bëgg xam parce que ñun dañu spécialisé rek si si moyen sport ñun mooy sport rek la def. tenue sport kase. defuñu yeneen kii parce que. non de non non yooyu bo yooyu parce que ñun groupe bu mag lañ nekk donc suñu groupe muy tudd daaw kom donc am département bu tudd tanool confection. donc moom la ñuy ibbi mooy def confection bi mais suñu groupe ñëpp xam nañ ko daaw comme la tudd donc dañuy def si communication donc tout ce qui impression dañ koy def mais dañu suñu nouveau entreprise bu bees bi muy Tanor confection te mu tuddee ko sama papa mu tudd Tanor donc moom tey la ñuy gën a faru valoriser par rapport sport bi donc moo tax dina wax ne tënnu yëpp la def waaw di leen wax di leen tàllal loxo di wax fédération basket handball football ah volleyball muy nage muy ñoom ñëpp am na fii sénégalais boo xamante ne muy cyclisme mu yëpp ku koy def fii te en moyenne coût ba pare ay sénégalais local. ñoo koy defar waaw jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Modou Dieng lii moom euh, daw na yaram wax dëgg yàlla euh, li ñu war a def rek mooy jàppale ko parce que macha allah ku am vision ku bëgg tamit dëkkam parce que lii maanaam mën nañu wax ni su ko neexoon. dem fa la rek toog bëgg lu yomb jël glace gi toog foofu di def wala di jël ay équipement di ko yóbbu ci sous région yi waaye tey jii nii vision bi mu am mooy solal équipe nationale Sénégal encore une fois ñu ngi def appel tamit euh, président fédération muy maître Augustin Senghor ñuy def appel nag tous les présidents des clubs sénégalais di leen wax ni rek fii ci HLM euh, 6 muy kii bi nu mu tudd sax. daaw daaw daaw comme waaw mi ngi fii ci HLM euh, 6. ci watu stade HLM bi ñu leen di woo ngeen ñëw jàppale seen doomu séné séné sénégalais comme yéen moo gën des fois transport bi ngeen di def di dem à l'étranger di dem Chine di fay te li ñuy qualité même qualité la te boo seetee sax fii mooy gën a moins cher que Chine bi ngeen di dem di wax nii rek tamit ñuy woo gouvernement bi di wax nii rek ñu gën a yombal sénégalais yi ngeen xam ni tamit ñu ngi investir fii ci Sénégal di liggéey pour seen réew ndax Sénégal maanaam macha allah yàlla daf ñu teral manqué. loo gis tey jii nii euh, ci ci ci àdduna bi rek pour ñun am na seen yàlla sunu borom defal nañu ko bu dee pétrole am nañ ko bu dee or am nañ ko lépp lépp rek matière yépp loo xam ne tey jii nii mi ngi ci réew yi nga xam ne tey jii nii dañu développé am na Sénégal kon encore une fois ñi ngi def appel rek di wax ñu jàppalante suñu biir da ciy baax di wax ni rek muy émission cent pour cent football local comme ni ma koy defee ma lenn. ak Asmaamoun fépp lay génne lépp li nga xam ne moo taq ci football rek pour sunu football bi jëm ci kanam pour sunu football bi taaru dinaa koy génne di leen jox dig daje rek ci beneen émission Bantamba foot 100 pour cent football local.